من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها, وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, سرا وعلانية فلهم أجرهم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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وآتوا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 وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوماً توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء السماء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح عليكم ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه والله بما تعملون سركم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا وإذا قيل لهم آمنوا rabbil alamin arrahmani rahimi man man sama waaye mel na ni ñaar mettitu ñaari guddi yooyee am na lu ñëw loo xam ne far na ko ba mu wax ne yaa man jasaa'ul hida ansaani wa durrahum yaa waahibal ihsaani waxaat itam ne ah taytani mal xalba ansa kullama mada bina durri maxawta zulama loolu nag mooy wane ne metti woon na waaye metti gi nag suñ borom fay na ko ci loo xam ne tax na mettit yooyee fàtte na ko jox na ko ci itam loo xam ne tax na mettit yooyee nga xam ne nekkoon ci moom itam fàtte na ko loolu nag mooy taxawaay bi nga xam ne bu ab jullit dëggoo rek suñ borom fekk ko foofu su dëggoo rek bépp mettit boo xam ne suñ borom teg na ko ko dana wala wala nattu dana ko andil xéewal goo xam ne dana tax mu fàtte mettit yooyee ak natt yooyee nga xam ne moo nekkoon ci moom loolu nag dëggug Sëriñ Tuubaa nag ci ci ci njullitam ak ndekk gi nga xam ne dafa dafa jeexoon ci yàlla tàkk loola moom da koo jëmmal ci ay wax dafa wax ne yaqulu laa ilaha illa allaahu kulli wa laa ilaha wax ne yàlla day man man sama lépp boo ko xoolee yàlla rek moo ciy feeñ ba tax na yàlla moo may ciy feeñ itam mooy mooy ki nga xam ne moo war moo war a feeñ ci jëpp moo war a feeñ ci lépp itam ñu mu doon loolu xam ne li war a bàyyi xel la loolu nag tax na xew natt yooyu nga xam ne moom la ko suñ borom tegoon la muy metti metti ak la muy tiis tiis xéewal yi ko suñ borom fay tax na ña ña nga xam ne ñoo seqoon ak moom di ko def nattu ya ak di ko teg bu ya bàyyeetu leen xel li mu bàyyi xel mooy sant yàlla mi nga xam ne moo ko fayee li ko fayee ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci ba tax suñ borom jox ko xéewal yi nga xam ne moom ko jox loolu mu mu ne moom it comme suñ borom. fay na ma ci loo xam ne kawe ni njortul ñëpp tax na ñi nga xam ne ñoom laa ko seqaloon dañu doon ma mitiital te doon te doon ma teg lañ ma doon teg xoolatuma leen bàyyeetuma leen xel ndax xéewal gi nga xam ne moom laa suñ borom tax moom la ma suñ borom defal ba tax na ñooña mu wax ne afatu anil aadaay turan li wajhum li wajhi man nafaahum li xarbi li ma sarmadan lastu at faaw loolu mooy wane ne kon moom xéewal yi ko suñ borom fay su sant ko ci tax na bàyyeetul xel noon ya nga xam ne ñoom la ko seqaloon ak lañ ko doon def ba jéggal ne leen toppatu leen ci dara mu mel ni kon dafa mel ni dañ doon dañuy jàngal nag ne itam ne ñun itam nañuy bàyyi xel ci li nga xam ne mooy àdduna natt yu buñ buñ ñu ci mën rek su xew su su fay ga ñëwee rek na tax ñu fàtte ña nga xam ne ñoom ñoom lañ ko seqaloon dootuñ leen topp ci dara dootuñ dootuñ dootuñ leen dootuñ leen jàppal dara itam loolu am solo la mu doon jotaay boo xam ne itam yaakaar naa buñ ci buñ fi ñëwee war nañu fàttaliku li nga xam ne moom lañ séq li ñu séq nag suñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tënkal nu ko tënkal nañ ko suñ borom itam wax nañu ko ci biir alxuraan ndax suñ borom dafa wax ne innamal muminuuna ixwa loolu li muy tekki mooy kenn kon jullit bu nekk war naa xam ne jullit mooy mbokk mooy mbokkam xam googee nag mooy tax mu mën a dox li war a dox seen diggante ci jàpp jàppalante ak diggante ndax bu jàpp jàppalanteeg dimbalante boo xamul ki nga ko seqal mën naa bañ a sori mën naa bañ a àgg fenn fi waaye boo xamee ki nga ko seqal mën naa tax mu gën a dëgër mën naa tax itam fa mu àgg fu kawe sa jot loolu mooy kon faw dañuy xam ne ay jullit la ñu xam li ñu li nga xam ne moom ñu moo ñu ba tax nag li ñu war a seq itam ñu war koo seq war a seqee bokk na ci itam li nga xam ne moom la ñu sallallahu alayhi wa sallam wax ci jullit mbo ni mu war a taxawee mooy al mu'min lil munkar bu yaan yasudu baax ba'da mooy jullit bu nekk dafa war a bokk ak mbokkum jullitam ak bëgg-bëgg ak jëmukaay ndax xam nañ ne tabax ab birig moo koy tabax waaye xam nañ ne birig yu du ne birig yu mat rek ndax léeg-léeg mën naa am foo xam ne fay def mën naa am foo xam ne xeer rek lañ fay def mu mel ni kon jullit ñi itam xam nañ ne ñëpp mu ñu bokk tollu ab tolluwaay waaye nag ñu xam liñ seq rek ak li ñu tax a jóg bu ko defee loolu danañu jublee ba nga xam ne fañ bëgg a jëm danañ fa jëm fañ bëgg a àgg danañ fa àgg kon dañoo war a bokk ab ab jë ak bëggukaay ak jëmukaay dañoo war a bokk itam ay yëg-yëg kenn ku ne sama kum jullit la muy yëg da ngay ànd ak moom di ko yëge noona loola mooy li ko li yonente bi sallallahu alayhi wax ne masalul mumin lil mumin kal jasadil waahid isa staka minhu udwan tadaahu saahirul jasadi bi sahari watma loolu nag kon dañoo war a xam liñ bokk xam niñ liñ bokk nan lañ ci war a doxe xam itam ne bokk na ci li nga xam ne moom li bokk war nañ koo doxe noona mooy ñun ñëpp ñu bokk yëg yëg ñu bokk benn benn yëg-yëg ñun ñëpp itam ñu bokk bokk lu ñu tax a jóg bu ko defee rek danañ dajeeg dël bi nga xam ne suñu borom moo ko dël jullit ñi ak garanti bi nga xam ne moo ko defal gar moo ko moo ko garanti jullit ñi muy wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'minin loolu nag bu ko defee kon li nga xam ne moom lañ moo lépp lu jafe ci ñun bu fekkee ne ànd nañ nii nga xam ne nii la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ne jullit nii la ñu war a ànde ànd nga xam ne nii la suñu borom leeral ne nii la jullit nii war a ànde buñ ko defee rek lépp loo xam ne taxaw na ci suñu kanam danañ danañ ko danañ bu doonee luñ fa war a jëlee danañ ko fa war a jëlee bu doonee loo xam ne dañ ko war a ko war a gën a samp suñu diggante danañ ko mën a samp suñu diggante yàlla nañu suñu borom bokk jéggal yalla nañu suñu borom bokk taxawu wasalaamaaleykum wa rahmatullah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 allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين afalaa yanduruuna ila al ibili kayfa xuliqat wa ila alsamaai kayfa rufiat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila al ardi kayfa sutixat wa dakkir innama anta mudakkir lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yucadibuhu allahu alcadaaba alakbar inna ilayna iyaabahum summa inna alayna xisaabahum allahu akbar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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamualeykum.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 illa ma shaa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wala yauduhu xifsuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim allahuma bi haqqi wajhillahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xasim abdaka wa xadima rasulika min kulli ma yasuuhu aw yarkuhu bi qadri azamati zatika wa kun lahu bima yasurruhu wa yanfaxuhu wa la yadurruhu bi shay'in ila duxulihi aljannata allati wu'ida almuttaqun amin ya rabbal alamin wa hab li kulli man ta'allaqa bihi kulla maxtarta lahu min manaafi'i dunya wal axira amin ya rabbal salaamaaleykum mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu leen sant ci sëriñ ci turu sëriñ bi cheikh mouhamadul muntaqa ibnu cheikh mouhamadul bachir ibnu cheikhul xadim di ko sant fu cant mën a tàmbale ak fu mu yem di ci teg président de la république Macky Sall di ci teg le président Abdoulaye Wade di wax sëriñ bi taalibe yépp bég nañu ñoo ngi ñaan ci màggug jaamu yàlla gi sëriñ Touba jaamu woon boroomam ba mu fayee ko lii nga xam ni sëriñ bi jenn yitte la yoroon benn yitte la amoon mooy lislaam mooy jaamu yàlla mboolem seen jullit yi ndax fii këru diine yépp a nga fi ñépp ñëw nañu wuy si la ñi nga bokkal lislaam bi yépp muy këru diine yi ba ci bitim réew ñépp ñëw nañu wuy si la terule la ñi nga xam ne ñii yaa leen woo ci ubbiteeg gi nga xam ne mooy ubbiteeg jumaay Masalikul Jinaan jumaa ji nga xam ni yàlla moo ko fayee Serigne Touba ci màggub jaamu yàlla am ga nga xam ne bii moom la jaamu woon yàlla ci natt yu rëy yi nga xam ni suñu borom tegoon na ko ko nga nekkal ko fi nekk ci kanamu njaboot gi di dimbali ñëpp di tete ñëpp di woote jàmm ci réew mi di ko woote ci àddina bi yëpp. ñoo ngi ñaan ci màggu suñu borom yàlla na la fi yàlla yàggal wéral la li nga bëgg yaa ko xam mbàkke yàlla na ko yàlla def te bëggoo dara lu dul yëkkati baatu lislaam baatu laa ilaha illa allah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom la sëriñ bi amoon di ko yëkkati moo doon dundam moo doon nekkam nga nekkal ko fi di ko yëkkati di ko yëkkati ngir diine ngir lislaam ñu ñu ñuy lay santale sa ñaari gan yu baax yi yëpp nga xam ni ñoo nekk fii ñuy doomu réew mi ni ko waxee kii di bàyyi kii di doom yàlla dajale leen ci sa kippaar addina bépp a ngi lay sant ñëpp a ngi lay gërëm ñëpp a ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk jàmm ci réew mi yàlla na yàlla yokk wërsëg ci réew mi yàlla yàlla yokk xéewal ci réew mi sëriñ bi li ma taalibe yi waxoon ni naa la ko wax mënumaa wax lépp ndaxte li taalibe yi yéene woon ëppoon na lool waaye jotaay bi moo xat tàng waaye sëriñ bi ne la biir nii taalibe yëpp a ngi lay sant cant giñ la sant nag du dara li tax li nga leen teg ci lislaam teg leen ci woo ci baatu kàlli euh, kàddu suñu borom gi illaa ilaha illa allah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon maa ngi gàttal kàddu gi di wax sa mbokku lislaam yëpp wusi nañ la sëñ papa malik mii moo fi tee too Mansour ak délégation kër diine yëpp koo gisul it ñëw na fi te teel na ñoo ñëw ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant président Macky Sall di sant président Abdoulaye Wade di sant tamit Cheikh Mouhamadoul Bachir mi ngi ñu boole woon liggéey bi ba liggéey bi mel nii ba tey jii ñu jël ko di la ko jébbal nga di ko jébbal l'islam bi yëpp kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaye ñu ngi lay biral tamit sëñ bi. cant gu wér a wér a ñu ma boole loon liggéey bi di ci jéetal sëñ Moussa Nawel mi nga xam ni dafa nekk ci sa ginnaaw doon sa taalibe doon sa lépp bu ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ bi nee na ñi ngi sant sunu boroom bu baax a baax a baax a di sant borom liggéey bu rëy bii dundam gépp mu nekk diggante yàlla ak yonent bi di ko sant bu baax ba ñi ngi sant mboolem kilifay yi yi nga xam ni teew si nañ fi ak ñi nga xam ne amoon nañ yéeney teew su fi wala ñu wa ñu yónnee wala ñu am ngànt ñi ngi sant ñépp mboolem bokk jullit yi mboolem bokk taalib yi gis nañ taxawaay bi bu baax a baax a baax kilifa ak diine gum mën a doon kilifa diine gum doon xam na ne kenn jiituwu ko jë loolu ñoom ñëpp xam nañ ko wane nañ ko di sant bokki julit yëpp kenn ku ne góor jigéen mag ak ndaw kenn ku ne jàpp ne mbir mi sa mbirum bopp la noo ngi gën sant nag ci yàlla dégloo ndigal li mooy dégloo noo ngi gën a sant sunu borom bu baax ci jotaay ñaari kilifa yi toog ci bokk ak ñun liggéey bi farata sunu borom ji nga xam ne moom la ñu bokk ñoom ñaar nag mën nañoo taxawal réew mi yépp kii day taxaw taxawaayu waajur kii day taxaw taxawaayu doom ñoom ñaar day mel ni taxawal nañu réew yëpp noo ngi leen di sant bu baax di leen sant ji jataay bii nu yàlla boole noo ngi gërëm bu baax ñoom nag ñoom ñaar nag la ñuy gën ñaan suñu borom ñoom ñaar yàlla yéwénal seen mbir yëpp yéwénal seen diggante bu baax a baax bu ko defee mbirum réew mépp day yéwén ñun ñoo ñu ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp ñoom ñu jox yàlla njukkal su borom teral na leen ba noppi lu leneen lu ñu gis lu leen neexut seen bopp loola dogalu suñu borom la suñu borom jaamam bu mu cëral il faut mu nattu la kon luñ gis lu leen naqari ci seen bopp rek sequñu ko yàlla moo ko dox ci defaram waaye yàqul fowul juumul te mooy def mooy dindi kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom ñaar ci jataay bi di leen ñaan ci suñu borom yàlla def liñ bëgg ci ñoom réew mi gën a defaroo ci ñoom ñi ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp itam ñu delloo yàlla njukkal sant ko ci lim leen defal nañu muñ ci lim leen teg te xam ne seen njëriñ képp lay doon waaye nañ ko wëlbati ñoom ñëpp jëf ko muy yéene ju rafet muy jëf ju baax loolu mooy natt bi nu yàlla nattu nun ñëpp tabaaraka alladi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir moom mi nga xam ne moo bind dund ak dee ngir mu nattu leen ci dund googu ba ba su ba borom sàkkee dund sàkk dee li li ci wax leer na nañ defanu ko lu dul danoo nattoo rek di ñu seetlu li ci ku ci gën a rafet jëf loolu leer na nañ laay jooju doon sëkk alxuraan ay junni junni laaj waaye laay jooju doon sëkk nañ ko dégg bu baax te jëfandikoo ko jërë jëf ñi ngi sant bu baax a baax a baax jëwriñ nee na nee bi nee na Pape Malick nee na ñi ngi koy sant di ko yónnee ak cant nee na mën naa fab cantam jaarale ko ci Pape Malick mi mu jëm ci kilifay yi diine yëpp ta na tabaarakallaahu dar réewum puñu ci moom xam nan ko baax ba muy gën di ndaw laa ko xamoon ba léegi si doxin wu rafet rek la xam ci moom loolu rek kon ni koy sant bu baax ñu ngi koy jotat mu ne Pape Malick nee na ne Pape Malick dafa am lu mu bëgg sëñ ñaan ko mbokk yu fi daje di bokki deret kenn ku ne yéene bi nga am ci sa moroom yéene bi nga am ci sa moroom bokki daje bokki taalibe daje kenn ku bu rafet bi nga am ci sa moroom yal nay seen njëggal yowmal xiyaama yal nay seen njëggal yowmal xiyaama yàlla bu leen yàlla bu leen yàlla topp dara man na ko ci barke yonent bi mën na ko ci barke mag ñi waaw kon sëñ bi gisaako la waaw waaw jëwri nit nee na sëñ Mbàkke yu fay nee na ñi ngi gërëm Aly nguy njaay mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bu baax ci taxaw li ko président santoon lépp def na ko lépp mën na daf ne sëñ bi dem ne sëñ bi dafa bëgg nga dellu ci démb. dafa ni daf la sant déggul rek li mu la waxoon ci biir ni yaay bàyyu réew mi kii mooy doomu réew mi nee na loolu rek lay wax di ñaar ñëpp war ngeen a sant yàlla te mi ngi leen di ñaanal di leen bàyyi xel loolu rek la wax en résumé. moo moo doy waar moo baax بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما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 يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا